ak association bi les assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen ni may li ci y yi. dañ ci and ak Serigne Saliou Seck. dal leen ak jamm lu def waxu lu ay di jàmbat jàmbati patron de presse yi jëm ci fisc bi njiitu réew mi wax na ci le quotidien président Bassirou Diomaye Diakhar Faye demb la doon dalal convention des jeunes reporters du Sénégal ci palais de la République fofé ci la porox ndolo ne impôt fay rek effacer bin ñu leen mujjee defal moy nek effacer buy mujj ci impôt président jomaay ne lan mooy nday ngay dagg sa salaire liggéeykat ba pare lànk ne doo fay impôt terewul nag moom njiitu réew mi mu ne ubbeeku na ngir dalal patron de presse yi ngir waxtaan ak ñoom bay saafara mën a am waaye lu jëm ci impôt yi moom amul sikki sàkk faaw fay ko ci Sud Quotidien Bassirou Diomaye Faye di fa xamle ne fraude fiscale jeex na ci réew mi Pape Alé Niang ci source aané direction générale des impôts et domaines tëj nañ compte yu RTS ndax ñoom danoo yore bor ci mu koy ñaawlu lii Quotidien samp laaj na lan moo waral bi lépp acharnement jëm ci presse bi impôts yi vox populi ne lu ci mën di am daa président Bassirou Diomaye Faye nee na patron de presse yi nañ bind mu dalal leen ñu toog waxtaan trouver solution waaye fay impôt moom mënta ñàkk journal bi yokku ca ne démb bi mu doon dalal convention des jeunes reporters seen njiiti di mi gi Maram Ndiaye wax na ci lépp wax na lépp luy jafe-jafe reporters yi wax ci presse bi en général ba ci ñi koy jiiteek jafe-jafe yi ñu nekkee président Diomaye ne noppi na ngir gunge presse bu moom boppam Camara leneen lu mu war a dugal loxom moom président Diomaye Faye Adama Gaye ci la koy woo ci direct news nee na juróom-benn fukk ak ñeenti élèves yi doon def baccalauréat te ñu dàq leen mbir mi ëpp na te jéggi na dayoo tribune ne ay élèves yuñ jàpp ak portable doon tricher tax na ba am na ñenn ci ñoom jamono ji ñu ngi ci ab garde à vue Adama Gaye ne loolee moo tax muy sàkku président Diomaye Faye lijjanti lu ni mel Sud du Quotidien moom xëy jox kàddu gi ay àttekat ak ñu fare ci société civile bi ngir laaj leen ndax président Diomaye war la magistrature aliou ndaw ak souleyman Teliko ne mu bañ ca bok moy li gën Demba Kandji ak Badio Camara ñom gisunu gisuñu da ca wara dess alintine mom diko ñaax mu def le gën li gën ci diggante ilimani jëwri ni ak assemblée nationale journal L'As président fay jël na dossier ba aba mbay ci Les ne ñom wa taxaw ba fi ken len ap modification article 87 waaye li nu japp moo yu premier ministre bëggé def déclaration politique générale amul dara lu koy té kan moy té bugaan gay daani tribune yéen a ci tanki Ousmane Sonko la nek ba tax ci téméri fan yi fi nguur a def jiitul gëm sa bopp nee na ca grand théâtre lay dem wane ponk par ponk la ca am nay lënt-lënt li lëndëm ba tey te leeragul moo di réeruk Fulbert Sambou ak Didier Badji ñaari takk deeri journal L'Info nee na fi mu seeni frère d'arme ñoo sàlloo combat bi ne faaw leer leneen lu war a leeral moo nekk ci xët u njëkk libération yéenekaay bi ne ca de sécurité sociale benn milliard ak juróom-ñetti téeméeri million ci xaalis CFA moom lañ fa dëbb li ko woote le soleil national ne premier ministre di Ousmane Sonko moom ca ndar géej lay féete jaraaf bu mag bi féete ci wakaam moom la l'observateur xëy dalal tey yéenekaay groupe Futurs Médias bi waxtaan wu yaatu la séq ak jaraaf Youssou Ndoye bàyyiwul dara wax na ba ni dem na ba am ñeenti at te mënta dox leeral na itam lan moo waral ni muy solo na mu léeje woon bañ koy dàq école jaraaf Youssou Ndoye nee na itam football kat bu mag la woon te numéro 9 la daan sol sumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige association bi assureur du Sénégal Ce projet bi jëm digitalisation attestation